billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokku taalibe waa daara Hizbut Tarqiyyah daara Xudoos ci biir réew ak ci biirum réew seen mbokkum taalibe sëñ Mbàkke Coon mooy dikk si bisu xeet bi di Iidul Adha fukki fan ci weeru Zulhijja dëppook alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru juin 2023 di leen ndokkeel bu baax a baax a baax si bis bi di leen jéggul si bépp ak goo xam ne dox na sama diggante ak yéen waaye di leen jéggal ci lépp loo xam ne su suñu wàll la waaye di mën a wax sax yéen moom amee loon kenn àq sama diggante ak yéen ci taxawaay bi ni mu selle ni mu ak ni mu pas-pas bi nga xam ne moom la saaba yi àndal na rek kon leen sant leen rek lay def ak gërëm leen ñaanal leen si daraja Sëñ Tuubaa mi xam ne yaakaaroon ku dul moom rek suñu ànd gi sunu borom téyel ni ko ba biir àjjana di sant bu baax a baax a baax it lii nga xam ne Sëñ Tuubaa defal nañ ko ñu seq ko muy liggéey sëñ bii di fàttali rek gannaaw bu loolu wéyee bisub it bi te dara waralu ko lu kenn si jaamu sunu borom yi bokk it si juróom yonent yi nga xam ne ñoo si ëpp doole di ulul azm yàlla sama borom takkoon ko natt waaye yàlla def mu rafetal ko rafetal gu sel moom ak ñi nga xam ne ñoom la seqaloon natt bi yëpp di soxnaam ak di doomam Seydina Ismaïl mi nga xam ne moom lañ war doon rendi waaye ñoom yi jiital. pas-pas seen digganteeg seen borom ak dogu gu mat seen digganteeg seen borom jàkkaarloog seytaane it ba yàlla def ñu jégg natt boobu sunu boroom jàpp leen ko muy bisub cant kon tabaski bi bisu naa Ibrahima la ak ñooñam jàngat yi nga xam ne moo la ci war a jàng sunu borom si boppam moo ñuy wax li si war a ak jàngat mi nga xam ne moom lañ ci war a ndax dafa wax ne la lan yanaalu la luhumuhaa wa laa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwaa minkum sunu borom nee na deret ji nga xam ne moo si tuuru du moo ko yiteel ndaw li nga xam ne ba mel ne ñangeen ni di bisu feet ndax yom ak la shorb la waaye ndaw li yàlla neen yiteel ko la ko yiteel daal mooy taqwallaahi gi mu ragal yàlla gi te loolu mooy li nga xam ne Seydina Ibrahima ak ñim seqaloon natt bi yëpp si lañ sukkandiku woon ba tax yàlla katt na leen ba nu mucc si natt boobu nga xam ne moom la leen te mel ne it xëy di yëpp daal la koy sabab mooy taxawal laa rek mooy li nga mooy li ci am solo ndax buñ jëlee korite dañoo woor ba koor gi mat ne nañ def it ci biir koor gi nag sunu borom jàngale ne lan mooy woor ndax kutiba aleykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun kan mel ne ragal yàlla rek mooy li xëy ne moo tax it googu gi taxaw it tabas gi it ragal yàlla rek mooy li ko saxaw kon moo tax ñu soon ñu suñu bopp ñu soon ñaan bokk taale bi yëpp ci li nga xam ne naka jekk rek foofu lañu ñu war a taxaw nag jàkk suñu borom bañ ko booleeg dara rek te xam ne takk taqwallah mooy li nga xam ne ku ko yàlla def dese lu tut dara te duñ dañ mukk it di ko fàttali na waxi suñu borom sunu borom moo ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib loolu day doy sëkk ci fii suñu nekk ak fa la ñu jëm mel ne ne buñ taxawee taqwallah suñu fii dana yéwén fa la ñu jëwit dana yéwén nattu it lu mu rëy rëy rëy rëy borom faw muccal si ki nga xam ne dafa taxaw si taqwallah kon nag ñu ngi soñ suñu bopp dina soñ yéen ñëpp rek naka jekk foofu lañ mas a taxaw waaye ñu doon see góorgóorlu bu baax baax a baax a baax a baax xam ne mooy jariñ fii ak fa ñu jëm gannaaw bu loolu jàllee it di fàttali yëpp rek ziar bu màgg bi nga xam ne dafa nekk sunu kanam te ñu koy waajal fas yéene ko defal sëñ Tuubaa sëñ Muntaxaa di ko ñaanal sunu yàggal ko fi lool te mu ànd lépp loo xam ne yéene na ko liggéey sëñ Tuubaa am si lu koy njort di ñaan sunu borom bàyyil ñu ko fi ndax sàkk la si lislaam sag si yoon wi ndax dafa yiir lislaam gépp ñun nag am na ci taw gu rëy a rëy boo xam ne war nañ ko ko moom day yiir nañu suturaal nañu taxaw nañu zahiran batinan kon Mbàkke yàgg fi lool te ànd ak wér kon mbokk taali bi si jëmm ju mel noonu ku tedde noonu moom la ñu war a dem siyaare ko si weeru juillet bi nga xam moom lañ dëgg ma la kon na pas-pas yi gën a yaatu rek te taxawal laa layal ko bu si jiitee ragal yàlla rek lépp loo xam ne bëgg nañ ko def suñu borom dañu kàttanal la may def si lu koy njort wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa